lay nuyu di nuyu Sénégal di nuyu Africa di nuyu ñëpp ñu siiwu Sénégal. Aïssi nga tudd est-ce que mën nañu wax kan mooy Aïssi. waaw oh, d'abord maa ngi tudd euh, Babacar Diop maa ngi judd Diourbel nekkoon tuuti Kaolack après si laa jógee Kaolack ñëw Mbacké fa la deux ans après si laa dem samay parents aux états mu jógee. ICB mu when I was in high school ma doon friend américain yi boobu ni ma doon solo affaire yi like ma temps yi am na son bu Gucci Gucci may génn mooy ice cream bi temps yi like ma yor exemple ice cream stuff like that apple ce son seen gars yi woo tàmbale wooye ice boobu commencé woon nga di def musique wala commencé woko ko woon non boobu tàmbale ma def musique normal ndax ma nekkoon high school amoon lii pour def musique ak yooyu kañ nga commencé def musique maa ngi tàmbale def musique 2014 que jot nga am ay produits ay album wala ay clip. Eh, jot naa am am euh, amaguma ay album mais def naa benn benn genre benn mixtape mu ngi nekkan afro music naa afro mu ngi nekkan trap music trap la woon nekkutan afro après si laa def euh, même mixtape boobu def naa ci vidéo ay presque ay cinq vidéo cinq vidéo yan vidéo lu mu tudd vidéo yooyu mu ngi nekkan I get to the money sunshine. I get to the money, to the money. Even gotta try. I get to the money. I got popping things. I'm so fly. I get to the money. Which was my first single, single bu ma njëkk a record bu ma njëkk a def après ma def euh, ten toes down def beneen son ma def fata. artiste boo gis day am concept la mooy sa concept yow. man sama concept like when I when I like in the beginning si commencement bi xamu woon directement like man genre musique moo nekk sama sama musique après si laa dem dem ba tàmba faamu sama line like te lool dama koy sant dama koy sant yàlla ndax dama dama gaaw a faamu sama sound mooy musique bu bu ma war a def ma dama ko gaaw a trouver si laa tàmbali def. beneen musique boo xam ne moo nekk sama musique moo nekk vrai moo nekk the real me. mais est-ce que du am ay message yooyu faral di jàllale ci musique boobu yan genre message lay doon. man euh, si man li may li may dund laa man a wax na mënuma wax leneen loo xam ni xamuma ko wala dund ma ko boobaa du nekk lu nekk lu real quoi te ñun dama bëgg lépp lu may def mu nekk real mais boo xoolee sama musique li ma ëpp lu may wax sama musique mooy li may def tout li may jaar jafe-jafe yi may def wala neex neex beeg yooyu. bi ñu jotee seetaan sa clip vidéo yi da ne li ngay dund moom ngay musique dañuy gis ay gel yu rafet ay gel yu sexy ay xaalis fii ay champagne loolu ngay dund yow. non I mean music is di two different thing booy def musique ak boo nekkee sa gàlle dafa am ñaari affaire yi dafa am différence bu mag différence bu mag clip booy def clip. yee da nga bëgg li gars yi bëgg gis ngay wane affaire bu nice te loolu benn part bi dañ koy dund benn part bi affaire musique la mais mais li ci dañ koy dund. ah ay waaye bu ko laaj ko mais gel yi moom yee gel bu ko laajee day ñëw ba sab sab ah mais lan moo tax choix boobu. parce que rafet rek ma bëggul rafet bëgg xale yu rafet sama vidéo. te loolu la gars yi ba gis léegi nga koy jox rek. kon da ngay def musique pour commercial wut xaalis wala dañ ko def pour yeleen. yeah bien sûr léegi pour pour wut xaalis la de pour def ko pour nit ñi bëgg na nga wut def xa wut si xaalis ñi la topp si ñu topp sa sa sa wet dund ci say parents ñëpp dund si. léegi ñu ñëw tuuti si sa look vestimentaire la moo tax càq yi bëri. lam jaaro yu bëri montre yi lan ngay jéem a lancer message ci loolu. amee ah, man damay def li ma féel rek li nekk si man laay wane rek loolu laay dund loolu laa xam loolu laa moom laa mën a wane mun ma li ma li may sol rek ni laa mën a solo bu ma solee leneen du ma nekk à l'aise li laa mën a solo ma solee li may free ma solo lii du ma nekk à l'aise. d'accord mais est-ce que yaa ngi jot di déglu musique sénégalaise. yeah maa ngi déglu muy sénégalais surtout hip hop bi ma koy déglu damay déglu afro que right now afro music si laay moom laay def maa ngi moom laa pour may def nii mais may déglu musique Sénégal. yan artistes ngay faral di déglu. Sénégal. waay. oh da dama presque damay déglu damay hip hop bi yaa ngi koy déglu bu baax a baax. yeah damay déglu hip hop. da ngay ay Dip. yeah Dip yeah Dip Hakill. ñoom ñëpp ko bien ñëpp. mais tey boo doon def benn critique ci mouvement hip hop Galsen bi lan lay doon. li ma gis mooy musique bi des na lu bari dama jàpp ni Sénégal nekkul dëkk musique surtout loolu Sénégal nekkul dëkk musique surtout gars yi osé wu ñu pour ñimewu ñu def li ñuy def bu baax sur wala booy def dara yaa ngi xalaat kenn wax ci dara wala kii walla loolu laa jàpp moo ko tee moo ko tee dem. mais loolu lan nga yaakaar parce que waxoo mu clair quoi da ngay gars dañoo war a wane ay gel yi sexy wala. mu demee noonu pas yu wane gel nga wane loo xam ni sa culture comme boo xoolee nisul musique euh, Niger musique ñoom seen seen musique wane ñu affaire yi sexy des fois ñu wane affaire yi sexy des fois duñu wane ça dépend ci son bi ak fi nga ko ak ni ni li concept bi laaj léegi bu fekkee na nga def musique boo xam ni dafa jar dem dafa laaj nga dem ci sa village nga def fa vidéo da koy def bu fekkee na nga def vidéo boo xam dafa jar dafa laaj nga wane ay gelu sexe ay wane ay waay nga def ko. d'accord léegi loolu mooy tax musique bi dem quoi. mooy tax loolu mooy tax musique bi dem. waayen ak euh, fii sexe yi quoi. non pas waayen ak fii fii sexe yi. non que comprendre bu baax. dama bu fekkee da nga def son boo xam ne dafa jar nga dem ci village bi. Mhm. tourné ko fa. da nga fay dem tourné vidéo bi bu fekkee da nga def son boo xam ne da nga dafa jar nga def wane ay gelu sexe wane ay waayen nga wane Hmm. loolu mooy tax musique bi dem quoi. non ak leneen la leneen. leneen la dafa bari loo xam ni foo gars yi kenn affaire lii la la c'est que yow yow mi def musique yaa xam fi ngay jaarale si affaire mu jàll. non parce que su ma la déggee dafa mel ni danga naan gaa yi dañoo xaw a ragal ci wane ay sex fii sex yi ay. waa yee yee yee gars yi yee loolu moom sax xam nga gars yi mooy loolu. gars yi si am fii bëriwul. léegi yow sa carrière foo ko mën a jouer fépp euh, États-Unis nga nekk. Mm-hmm. est-ce que foofu rek ngay yem wala da ngay bëgg di ñëw Sénégal di tourner ay clip di def ay featuring ak yenn artistes yi. man euh, maa ngi nekk États-Unis mais defuma musique bu ñu defee fee. Mm-hmm. africain africaine laay def surtout musique afrobeat afrobeat laay def waaye na afrobeat laay def sama son boo xoolee laay ma am ci ay fans ay fans yoo xam ne ay nigériens lañ moo ëpp kay sénégalais. ak ay Gambien moo ëpp kay Sénégal na ñoo gën a like may bi ñoo gën a xam lu baax li may gën a wax ak yooyu. d' accord ñu ñëw ci sa dernière vidéo mi African Girl. Mm-hmm. pourquoi African Girl lan nga ci wax. naa ne African Girl maa ngi ko def ak sama benn copin euh, bi Red mu nekk frère Davido nekk si H15 Gang di job ak euh, TK TK Witi nekk benn producer mag boo xam mu ñu xam ci Afrique bépp léegi euh, son bi. moom laa defal son bi mu nekk son bu nice mu nekk son même son bi ngi like was one of the biggest song in uh, Nigeria. d' accord léegi après loolu lan mooy doon projet yi. waaw yow boobu ma avant boobu dama doon génn waaye génn benn EP nag son bi si EP si EP bi la nekk EP mu ngi tudd ATTW Africa to the world noonu la EP bi tudd son bi si biir EP bi la nekk mais dama génn son boobu pour avant EP bi di génn. like EP bi am na yeneen artistes yu ci bokk yoo xam ne ay même yeneen nigériens yu ci bokk ak some other artistes. d'accord mais amoo projet fii Sénégal. Sénégal maa ngi jëm uh, jëm fi benn label benn label fii senegal maa ngi am na benn artiste boo xam ni uh, moom mu ngi ci dugg na ci label bi mu ngi tudd Haykill mu ngi ci label bi moom it hip hop Sénégal lay def comme musique bi fii lay def. mais dama bëgg job ak moom pour wane ni musique bi mën nañ ko yóbbu faneen foo xam du Sénégal kese. d' accord si lan mooy sa mot de la fin. mooy di big shout out sama fans yëpp Sénégal and all the websites all the TVs radio surtout Sénégal yeah that's it. Um, oh girl I like the way you want to figure it uh, with feeling in my heart as rotate. Can't deny that you might enjoy. It's one of my songs coming soon.